procès bi waaye nag comme ni ñu ko waxee procès bi mu ñëw wala mu ñëw mu ñàkk a ñëw dinañ ko jugé dinañ def li nga xam moom mooy euh, peut-être euh, jugement par contumace comme ni ko Birahim Touré waxee léegi waaye euh, dafa am loo xamante ne bëgg naa ñu taxawaat ci bu baax a baax parce que dafa nekk loo xamante ne ñun ñëpp ñun ñoo ko gisandoo procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr di ko dalee atum 2021 ba léegi nii bés bu ñu jàppee procès boobule dafay am ay njeexintal yoo xamante ne daf koy am ci dundu askan wi mu nekk ci wàllum koom-koom mu nekk ci wàllum kaaraange maanaam tamit ci wàllum dal bi nga xamante ne askan yi war na ko dal donc loolu nekk loo xamante ne c'est important pour ñu ci daal di taxaw et donc la raison pour laquelle ñu jàpp ne euh, war na ñu mën a taxaw ci procès bi euh, pour euh, maanaam feex la lumière ne serait-ce pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan Cheikh Diop loolu je pense que c'est vraiment loo xamante ne war nañ ci taxaw pour vraiment ñu feer la lumière sur cette affaire là pour qu'enfin ñu mën a li nga xamante moom mooy feuilleton bi oui faire la lumière parce que comme ni nga ko waxee ah c'est un procès boo xamante ne ni vraiment mi ngi commencé couté cher. Mm-hmm. daf ñu sax couté cher nag wax dëgg fa yàlla parce que euh, ça trois ans d'affilée mm-hmm. à chaque fois bu ñu wax bu ñu waxee ne euh, dañuy dellu siwaat ci procès mm-hmm. ñeel Sonko Ousmane Sonko ak Adji Sarr euh, dëkk bi day day day day day taxaw. loolu benn ci koom. Euh, parce que ci kanam sax dinañ waxtaanee ci ñenn ñi nga xam ne nii dañuy yëngu ci kawam. Mhm. ci ñoo xamante ne euh, saa yu procès bi amee rek. du ñu waaw du ñu mën a du day dem day day indi ay jeexital yoo xamante ne nii mhm. am am solo la. Mhm. ci ñoom te Birame da koy wax la plupart du temps mooy am na ci ñoo xamante ne nii seen dépense ci jour bi lañ koy lijjanti mooy par exemple tey jii nii nii nii nii heure bi lañu ñu war a jug dem lijjanti ci seen dépense ñooñu bu ñu leen xañee loolu mooy lor nañu ay njaboot. un pays sous-développé mhm. un pays boo xamante ne nii liggéey amul dëkk boo xamante ne nii comme bi demeewul comme ni ni mu war a demee mhm. à chaque fois bu euh, procès yu mel bu mel nii amee rek euh, euh, ñëpp dañ koy sentir mhm. te du te du ñoom rek ñi nga xam ne ñoom ñoo du du rek ñi nga xam ne ñoom ñooy jug di lijjanti dépense waaye tamit ñi nga xam ne nii mooy les forces de défense et de sécurité il faut le dire ñoom ça fait plus d'une semaine si vous bu fekkee am ngeen seetlu. Mhm. ñi ngi ci rond point yi taxaw scotché pendant 24 heures da nga leen di gis ñu taxaw gaa dafay am ay ron mais da nga leen di gis dangay romb gis leen ñu taxaw ah pour euh, veiller à ce que mu bañ a am ay perturbations wala mu bañ a am ay conflits. Mhm. donc loolu c'est des choses yoo xamante ne ni lu ñu war a bàyyi xel la et sànq man wax naa léegi léegi que ne le crochet comme le le procès nous coûte cher. Mhm. effectivement ce ce procès quand même nous war. li am mooy qu'on a fini une bonne fois pour tout ñu wax ñu walla sax euh, ñu xam kan moo tooñ ak kan lañu tooñ ki tooñ ñu daaj teg ko ay daan ki ñu tooñ ñu mun ko euh, seetal mu mu mu mu mu mu jeex mais aussi tamit di bàyyiwaale xel état que ne bu le président Macky euh, waxee ne am na ay dossiers yoo xamante ne nii man duma dama ciy teg sama samay conc parce que mën naa parce que bu ma ci tegee sama conc euh, damay bañ ñu mu mu mu mu nekk dossier boo xamante ne bu ma ci tegee sama samay conc damay bañ mu am ay répercussions yoo xam te ne dafay néfaste ci population bi donc loolu pour rap rappeler l'état central que bu fekkee ne dafa am une quelconque implication boo xamante ne nii mi ngi ci ci procès bi bu mel nii mais li lay war a suul nañu nañu dimbali ñun ñii nga xam ne ñun dañuy xëy fajar teel mhm. di dem liggéey dañuy xëy fajar teel di uti loo xam te moom la ñuy def suñu njaboot yi mhm. ñu jéem a xool ñoom naka lañuy def pour que euh, euh, li li li mën a jàppale dëkk bi mhm. mën a am mooy ñu ut ay négociation wala waxtaan waxtaan boo xamante dina permettre ku ci nekk mën cee gis comptable mais comme nag dafa nekk loo xamante dañ ko yóbbu ci chambre criminelle euh, li war mooy ñu euh, ñu ut décision boo xamante ne nii mhm. dafay définitif mhm. et puis mu doon def décision boo xamante ne aussi tamit buñ koy jël nañ ci bàyyiwaale waale xel bu baax a baax a baax mhm. ñi nga xam ne ñoo ci nar a empatir mooy la population parce que sonn nañu et vraiment ce procès bi ñun dañ man dama koy wax dañoo dañoo sonn a chaque fois bu bu bu bu bu bu amee rek que vraiment la population ne puisse pas vraiment vaquer à ses à ses occupations et que euh, euh, tout soit aux arrêts mhm. tout soit au ralenti. Mhm. Euh, ak li xew lépp euh, Birahim am nañu jàpp fi mu ne ni ni état de droit nekkul loo xam ne dañ koy waxati ndax euh, peut-être état de droit am na noo xamante si ni moom moom lay tëddee. Mhm. mais un état de droit. justement mooy état boo xamee ni ci wàlluk démocratie ci wàlluk institution yi. lépp a ngi fonctionner. xam na Cheikh wax na ci. sentiment wu boppam ak sentiment wu pas mal de sénégalais ci lu jëm ci coowal Ousmane Sonko Adji Sarr mais fii mu agsi nii peut-être li ngay wax ni teg ci sama conc si on l'avait fait depuis le premier jour ah ba mu bañ a agsi fii oh, oh. peut-être kon euh, mënoon na nekk mais comme dem na ba ci wàllu justice ñu porter plainte ñu ne kii wax na dëgg kii waxul dëgg ñu génne ay kayit ne ni am na ay vidéo am na ay son am na ay nangam ak nangam. Mm-hmm. ba mu agsi fii l'état central amul pour def ci loxoom wala pour def ci quoi que ce soit li ñu naan béy wéy na mbuur c'est trop tard. Mm-hmm. te su ma nee l'état central l'état central se doit également de garantir la séparation des pouvoirs l'état central se doit de garantir que justice mu ngay dox doxu boppam que lu ñu woowee donc mooy pouvoir Euh, euh, judiciaire que pouvoir législatif mu ngi dox doxu boppam exécutif di dox doxu boppam ku ci nekk bañ laale ak sa morom mais muy am ay partenariat yoo xamee ni àla kulial faw ku ci nekk mën a jàppale sa moroom ci lu jëm ci euh, la ngay def ba état de droit boobu état de droit nag moom mooy tamit que man citoyen sénégalais ñu convoqué ma porté ma état de droit moom ma may ma mën a dem taxaw setal sama sama dar ci tuuma yi ma teg état de droit moom ma mën a may également ma ne man yoon may na ma ma bañ a wuy ji ñu ne nag boo wuy jiwul mhm. am na benn disposition spéciale ci biir euh, code de procédure pénale boo xam ne moom mooy moom mooy dellu ci ñu wuyu jiwul mhm. mooy sànq li ma doon euh, wax ci mhm. li nga xam ne moom mooy code de procédure pénale boo ko jëlee article 238 jëm jëm kaw ñu ne la 238 ci code de procédure pénale ci chapitre 4 am lañ doon wax ci wàllu ku war a dem wuy ci greffe bi muy accusé bi nga xam ne moom jàppuñu ko jógewul tribunal wala jógewul kaso wala ñëw wuy si ñu ne la yaa ngi ci liberté provisoire wala yaa ngi ci liberté kenn mësula euh, def dara kenn mësula wax dara kom kaw Ousmane Sonko ñu ne la da ngay présenté au plus tard la veille ci fi nga xam ne moom mooy euh, tribunal ba ci kanamu gref bi mm-hmm. euh, donc loolu démb la woon ko démb ñu ne la article 239 lu ñu la wax mooy am nga sañ-sañ yow président chambre d'accusation boobu wala chambre criminelle bi wala juge bi am nga sañ-sañu ne ni d'accord ñëw siwul ñëwul démb euh, te donte ñëw na sax démb mais man wóoluwuma ndax dina ñëw ëllëg pour fa fekkee procès nañu ko def li ñu wooyee ordonnance de prise de corps coow li foofu la nekk mooy ordonnance de prise de corps ñu ne la Ousmane Sonko mi Ziguinchor je dis Ousmane Sonko parce que coow li moom la mbir mi moom la ndax moom la ñu la ñu tuumaal ñu ne léegi comme moom tuumaal lañ ko ndegam dañ ko jëli pour mu ñëw wuy si pour mu ñu mën a fekkee atem wala am na sañ-sañu toog ca fa mu nekk euh, ndax donte euh, refuser jël euh, convocation refuser lépp waaye du tee juge bi ci audience spéciale bi ñu nekk mu ne man teewul dinaa def sama liggéey dinaa leen déglu dinaa génne yéen avocat yi wax leen li ngeen xalaat ci mbir mi euh, yow mi nga xay ni yow lañu tuumaal yow yaa tuuma indil ay yaag say avocat ay preuve ci tuuma yi nga joxe lii lan moo ko waral bu dee ay vidéo yu ñu war seetaan la bu dee son yu ñu war a déglu la bu dee ay photo yu ñu war a gis la yooyu yëpp mu ngi ci biir dossier bi nee nañu lu tolloo quatre cent soixante onze pages mhm. je suis pas dans le dossier je suis pas dans le secret plutôt des dieux xawma avocat lan lañ yore dossier bi fuitewul donte am na lu ci fuite te la ci fuite lañ lay wax mooy ni la ñuy wane yëpp mooy ni dañu tuumaal koo xamee ni deful dem na ci bërëb boo xamee ne nag bu léegi moi je reste convaincu d'une chose et je le répéterai à satiété je le répéterai ba lu yàgg il n'avait pas à war foon dem mën nga faa dem Cheikh Diop mii mën na faa dem euh, Alamine mën na fa dem c'est pas que dañu war a euh, ñaawal salon de massage wala yàq deru salon de massage mais ku nekk ak bërëb ba nga war a teg sa tànk tey man Birahim Touré ñu xàmmee ma ci mbedd mi am na bërëb yoo xam ni donte je suis un citoyen sénégalais am envie defuliwu mhm. mais am na foo xam ne mënu ma fa sañ-sañu dem mhm. ndax dañ ma naan yow sa métier ak na nga mel ak la ngay waxee ak say waajur wala nangam ak nangam amoo sañ-sañu di dugg ci yenn bërëb wala ñu lay séen ci yenn bërëb mhm. donte da nga fa doon romb sax yenn saa ñu ne la fii mu rombee nii sax mais nit surtout jamono ji ñu toll nit photo la Birahim da laa romb fële ca ngeen baal am na ay jamono on parlait de Ponty par exemple ñu woowee Ponty rek nit ñi ne ni foofu c'est un lieu de prédilection de euh, celles qui font le plus vieux métier au euh, ñu naan ni non foofu ay nit ñuy jaay seen bopp ñoo fa nekk ci ay jamono ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui mais ci ay jamono mais taxaw nga fa peut-être di xaar taxi sax ñu ne lañ ma nga Ponty ku dafa bëgg jënd ci ñooñu di jaay seen bopp parce que xàmmee nañ la siiw ma lu mu néew néew am na ñaari nit ñu ñett ñoo xamee ne xàmmee nañ la boo génnee ci mbedd ñu ne addiw ah, Birahim Touré ngi nii nit danay romb ci buntu kër gi ne la yow rek laay seetaan yow rek laay déglu nga gis nit ñëw benn Cheikh Diop romb ne ni kee eh kee du Birahim Touré fan lañ ko fekk buntu bërëb sàngam mm-hmm. mu jël ko foto ko ñu nekkoon kii li muy sellal ak lu muy rafetal ak lu muy baax baaxloo ak lu muy yaru yerulu ndeke ma nga ca bërëb sàngam mhm. te pourtant peut-être danga doon romb rek mhm. am na loo xamee ni yow warula la man je reste convaincu que Ousmane Sonko son erreur pour man son erreur c'était de se rendre dans cet endroit. mais mais moom Birahim. complot la mës a wax. ci ci mbir mi. waaw est que tey jii jotul peut-être mu dem jàkkaarloo euh, ak ak Adji parce que même bu fekkee am na ay ay ay audio yu fi jot a jaar. bu ñu jàkkaarloo mbir mi na fekk je suis dossier depuis le mhm. début. mu tàmbalee ba léegi. Mhm. je vois les de Adji mhm. je vois les sorties de Ousmane Sonko. j'écoute ce que Ousmane Sonko dit. jamais depuis le début de cette affaire il ne s'est attaqué à Adji Sarr hmm. au contraire lan lay wax mooy ni na ko ay mbokkam jàppale xolu yërmande mën naa dugg ci loolu mu ne kii yërëm naa ko parce que dugal nañ ko ci guuta goo xamee ni hmm. peut-être bëgg na cee génn te mun cee hmm. benn benn euh, nuñ euh, ñu ne beneen bi mooy ni euh, moom ci suuf ca la muy wax naan kii yërëm naa ko na ko mbokkam jàppale kii pourtant ni mu ñëwee dafa ñëw yaru ñëw na ñu poser question mu répondre de manière euh, nu ñu koy weeti poli euh, agressé wu ma mhm. waxuma absolument rien peut-être ay avocat am ñoo def nangam ñenn ñi jàpp ni c'est parce que Ousmane Sonko dafa am cofeel ci Adji Sarr mhm. je le dis parce que c'est dans les réseaux sociaux les gens en parlent nit ñi dañ koy waxtaane mhm. naan kii est-ce que bëggul Adji Sarr je ne dis pas que am na nag. attention je parle surtout à ceux qui sont très prompts à prendre leur clavier leur machine insulter wax lu leen neex mais damay wax li ci ne. dama naan kii am na xolu yërmande. ci kenn koo xamee ne xale la. jigéen la te teg nañ ko wala duggal na boppam ci guuta goo xamee ni. Euh, la ca war a. Mhm. war mën na cee bañ a génn. Mhm. beneen aspect bi ñu ne la non c'est parce que diw peut-être bu dee amul viol. mais seq na jàmm ak ndaw si. Mm-hmm. loo xam ne bëggul ëllëg du añ du reer waaye mët naa sedd. Mm-hmm. ñu nekk di ko xalaat. Mm-hmm. mais ku nekk yaa ngi wax ci coowal Sonko Adji Sarr Sonko Adji Sarr. même ces partisans de Ousmane Sonko même ceux qui sont soi-disant avec Adji Sarr gis nañ fii la dame la bi doon xëy chaque jour mu ànd ak moom amu ci kenn ku fekkee mbir mi Ousmane Sonko ko fekkee ak Adji piège nag am na ci. Mhm. man je suis convaincu que piège am na ci xam nga lan mooy piège bi ñun état wala ñun nguur wala ñun Benno Bokk Yaakaar. Mhm. dama leen di accuser xam naa dañ ma wax dara mais dama leen di accuser mhm. nee ni dañoo ñëw fekk benn situation boo xamee ni mais moom lañ doon wër xam nga situation ban lañ doon wër kii dañ ko bëgg daaneel. ba politiquement du am dara. ñu ñëw nag far ñu ne ñu ah diw de pourtant day dem bërëb sàngam ñu ne ah c'est très bien. loolu lañ soxloon nag moo fa yóbbu boppam de na tàmbali na dem ba pare moo fa yóbbu boppam de mm-hmm. la euh, Mimi Touré di wax mm-hmm. moom la mu doon wax naan ni ñun yorewuñu carnet d'adresse ak carnet de de de rendez-vous registre rendez-vous mm-hmm. suite beauté ba mu koy wax mu ngi ci beneen wàll wàll mais c'est toujours valable aujourd'hui kenn moo fa yóbbu boppam lan lañ la wax ba muy dem àndul ak garde du àndul ak àndul ak euh, kii keneen c'est son droit en tant que citoyen sénégalais dale où il veut mm-hmm. sur l'ensemble du territoire national et même au-delà dem bitim réew parce que am na passeport am na ci droit ci yaay jamono bokk mm-hmm. d'aller où où il veut Ousmane Sonko simple euh, agent des impôts et domaines euh, inconnu au bataillon fu ko neex na dugg c'est son droit le plus strict mm-hmm. mais par rapport ak projet bi mu yore par rapport ak ñi yaakaar ci wàllu politique par rapport ak taxawaay bu mu war a am ci kanamu askan wi ndax mhm. il est demain à à à président de la république mhm. euh, bu dee yàlla loolu la ko loolu la ko euh, la ko tegal ci ci yoonam am na loo xam ne amul droit am mhm. du question wu waruma ko def bëgguma ko def aw ma sañ-sañu def ko en tant que citoyen mais aw ma sañ-sañu def ko parce que du man kese dama am ay nit yu toog sama ginnaaw man dama koy jëlee comme c'est pas une comparaison benn sëriñ bu benn tarixa bu mu mën a doon am ay nit yu yaakaar ci yow c'est pas une comparaison mais mm-hmm. jël leen ñaar yi ngeen xool am ay nit yu yaakaar ci yow ñu ne sëriñ bu siiw nga sëriñ bu am daraja nga sëriñ bu nàngam ak nangam sëriñ boobu am na fu mu dul dugg mm-hmm. ndax ay taalibeem président la république am na fu mu warul teg tànkam ndax askanu Sénégal mm-hmm. ndax population Sénégal leader de l'opposition ou quelqu'un de l'opposition connu peu ou prou am na fu mu warul teg tànkam parce que y des gens derrière lui tey am na ay xeexoo wala xuloo wala ay ngiru xiiroo ci diggante coow loolu ba tey y des gens qui ont quitté le PASTEF mm-hmm. y a d'autres qui ñoo xamee ni adhéré nañu ci PASTEF parce que ñoom jàpp nañu ni euh, seen yoon newu ci l'essentiel mooy ñoom projet bi la ñu gëm mm-hmm. ba ci au sein du PASTEF nee nañu la même bu dul Ousmane Sonko l' essentiel le projet PASTEF ñun dañu koy défendre dañuy ànd ak moom. donc quel que soit le candidat de PASTEF du parti. Mhm. l' essentiel mooy na yóbbu le projet PASTEF. Mhm. donc dans cette histoire euh, ya a beaucoup à dire. Mhm. mais comme je le dis et je le répète. le juge c'est pas moi c'est pas toi c'est pas ñi fi nekk nii. Mm-hmm. du auditeur bay déglu du téléspectateur bi seetaan. Mm-hmm. du partisan Ousmane Sonko bay ba ba ba bay xuloog yow wala bi euh, ne ni kii c'est un projet dañ koy dañ koy sàmm. Mm-hmm. suñu bakken na ci des s'il le faut mais dañuy denn ak moom kenn du ko jege du ñoom ñooy àtte mbir mi gannaaw yàlla. c'est le seul juge et le meilleur des juges. mais mbir mi dafa dem ci yoon. mënoon na bañ a àgg ci yoon bu doon dès le début comme ni ko Cheikh di waxee dëgg nañu bal bi liñ koy mm-hmm. wooyee euh, mbir mi nëpp nañ nëppal nañu ko lijjanti nañu ko parce que yenn saa yi mbir am fii mais ay mbir a ngi fii am ci réewum Sénégal ak mm-hmm. ailleurs ñu ne la inceste am na ci kër mm-hmm. ndijaay moo sàkku euh, peut-être euh, doomu sëram walla papa moo sàkku doomam donte c'est criminalisé violé ngi ci leneen a ngi ci mais am na kër yu bari yoo xamee ni fii ñu toll nii. négocier nañ ko nëpp nëppal nañ ko. lijjanti nañ ko bu jaree génneen euh, doom ji wala génn seet nu ñu def. Mm-hmm. mais lijjanti nañu ko. Mm-hmm. ba siiwul parce que sutura googu la xam yàlla moo gën a bari sutura ñëpp. Mm-hmm. te moo ñu sàkk buñ lay wax ne la viol dafa am condition yuy wane ni am na viol wala am na duñ euh, ko waxee ci nit tëddee na ku mu warul a tëddee excusez le terme. wala am na koo xamee ni def na loo xamee ni waru ko def. mais dañ la naan nag temps de seede la war a am ñu ne la ñeenti seede amul ci kenn ku ci bokk ak sa morom xamante wuñu mësuñu dañoo dox daje. Mm. teg mais lu nekk wax nañ ko ci mbir mi. Mm. gis na dans cette affaire euh, pour préserver le Sénégal. Mm. il faudrait que tout le monde du côté du pouvoir comme de l'opposition sache raison garder. mais le principal et le principal acteur. pour man c'est Ousmane Sonko parce que. moom la ay ndaw topp mm-hmm. ne ni jaral na leen ñu jaay seen bakken ay xeexoo di am sànnante lacrymogène ay dit ñu naan ay def nañ lii def nañ lële mm-hmm. ñoom ñoo taxaw ne ni kii on ne le touchera pas mm-hmm. ñeneen ñi ñu ngi tontu ne ni ñun tamit non non ñun tamit dañuy génn def kii am na journal bu koy wax ne ni nañuy nañuy nañuy euh, tànnee wala nañuy dañuy def mimétisme boo xam ne baaxul mooy les gens du pouvoir ou ceux qui sont avec le président Macky Sall. nañuy mimé def nañu S xaw ma lan F24 ñun lañ teg S xaw ma lan 2000 nangam. Euh, S24. def nañu manifestation mu fees dell. ñun tamit nañ def suñu beneen manifestation ak côté. ñu ne nii dañuy toppandoo toppandoo bu saful. mais ñële surtout Ousmane Sonko qu'on le veuille ou non je le répète vraiment qu'on le veuille ou non. il a des gens derrière lui. comme tout le monde a des gens derrière lui mais. moom dafa am ay ndaw yoo xamee ni dañoo dend ak moom ñëw mm-hmm. taxaw ñoom dégguñu gisuñu mm-hmm. am nañu si yoo xamee ni faalewuñu sax kilifa diine faalewuñu kilifa diine xam nga ñu faale mm-hmm. Ousmane Sonko mais suñu demee bay jël ay njël la Ousmane Sonko njël la di takk nga xam ne attention ñu ngi foye loo xamee ni waruñu koon foye ay njël la nga xamee ni ñun si suñu xeet gi nga xamee ni sama euh, may jéem a doon murit te di sàkku doon murit dañ daan jël jël jëlu maam Thierno borom daaru ñu xam ne kii fii nga bokk mais mm. mu doon loo xam ne gëm-gëm la nga dem ci sama waa kër maam sama waa kër papa mm. euh, waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu nga gis ñu takkal la jëlu Cheikh na Cheikh Saad boole mm-hmm. kenn si njabootam tarixa yi di ko def nga ñëw ñu dem ba dañu ne léegi yi léegi ñoo koy def. mais si jaara yi sax Birahim léegi da ngay gis ku jël photo Sonko teg ci sëgg. Euh, nga xam ne nga xam ne. da euh, am na lu soppeeku. Mhm. ci mentalité mhm. nit ñi. Mhm. teg ñan ñoo leen soppi ce sont les hommes politiques. am na ko ma fi dégg muy wax démb suma juumul ma koy seetaan ci benn télévision c'est un comédien euh, je pense 2S laa koy seetaan maa ngi leen di nuyu au passage. kii euh, Touré. Tafa Touré Tafa mhm. Touré. je suivi mais aspect bi ma gisoon ci moom. Mhm. en tant que comédien qui me qui ma me fait rire. bi mhm. ma ko seetaanee mais li mu wax. mu yenu maanaa trop gis nga ñiy ànd ak yow taxaw na ni kii quel que soit alpha kenn du ko lan di nga xëy bés ñu ànd ak yow taxaw def sàppe di la jullee. parce que àdduna dara wuyu fi dara yàggu fi mais ne lépp rafet. Mhm. rafet bi nag c'est dans tous les camps Sonko il a raison de dire du ma dem parce que dañ ma bëgg def nangam pourtant <laughs> je le rappelle le premier jour euh, il a fait un point de presse qu'est-ce qu'il avait dit su procédé suba suba suba nañ dem procès suba suba suba parce que damaa bëgg seetaat sama dara. Mhm. qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Mhm. beaucoup d'eau a coulé sous le pont effectivement <laughs> quest entre temps tuumaan lañ ko lijjanti nañu fii wala nangam nangam qu'est-ce qui entre temps ba moom mu dem ba tey braqué wu na ni bu mbir mi génn dew ma fenn mhm. tontu jiwu ma kenn mhm. mais conséquences yi on parlait de jugement par contumace mhm. il peut être jugé il peut bien dit il peut être condamné, mmh. comme il peut bénéficier d'un non-lieu total sur cette affaire. Mmh. Mais s'il est condamné, mais sur le plan politique ñi ànd ak moom ñëpp bari la lu mën a xew ci réew mi tamit. s'il est condamné et qu'il est au Sénégal mais les gens vont aller le prendre. je vous donne deux exemples yoo xam ne il faut pas que ñu fàtte ko. maa ngi nuyu njabootu Cheikh il y avait des fanatiques de Cheikh il y en a toujours. ñoo xamee ni seen bakken jaraloon na leen Cheikh Béthio ba tey jii wala njabootam. Mhm. ba mu waree dem moom moo jël responsabilité ni ni bañ naa ay bakkan rot. Mhm. naa dem wuy ji gendarmerie ñu téye ko ca gendarmerie Thiès on y était boobu maa ngi ci beneen rajo bi di Zik FM Sen TV. Mhm. ñu dem ba Thiès. kooku li mu amoon si doomu aadama certains me diront il faut pas comparaître mais c'est réalité ay dit ñu ko toppoon partout au Sénégal bari nañu. teewul ñu yóbbu ko. yàlla suñu borom xare ko àjjana tey taasuñu ci barkeem. ñeneen ak ñeneen doon koo mën a doon ci réewum senegal koo mën a doon ci àdduna. Mm-hmm. buñ la waree dugal doo yàlla doo yonent buñ la waree tëj ci kaso dañ lay tëj ci kaso. je parlais de mm-hmm. l'histoire de Khadim Bousso. Mm-hmm. c'est un dignitaire religieux. am ay nit ñu nekk ci ginnaawam. yore alalam yore teraangam. Mm-hmm. tey njabootam ba léegi ñu ngi naan mais dafa am loo leen diggoon defuñu ko mais ba ñu demee ba fan la mujjee. Mm-hmm. nee nañu moom moo xaru parce que am na fu nit di tollu ci wàllu que ñu bëgg la yóbbu foo xamee ni du sa place. Mm-hmm. yenn saa yi nga ne man sama dignité moom may dund sax loolu. donc yooyu yëpp am na fii ci réew mi na nit ñi dal. c'est pas benn. Euh, journaliste bu ñëw taxaw naan day joxe mm-hmm. conseil mais c'est un Sénégalais qui a des enfants je le répète mm-hmm. qui a une famille qui a des parents qui a des gens yoo xamee ni bëgg nañ ko moom mu bëgg leen ñu bëgg mm-hmm. ñooñu xëy dem liggéey euh, ñii xëy tey war a joxe dépense amuñu dépense mu ñu joxe parce que mënuñu leen dem liggéey mais est-ce que Sonko moo leen jox dépense wala est-ce que Macky Sall moo leen jox dépense wala waa APR wala waa Benno non dañuy toog après naan fondé wala set am na ñoo léegi dem xam nañ ba bu ñu waxee waxu processa sax mhm. la veille dañu wut seen benn cent francs cere deux cent france soow <laughs> teg fële parce que day leer ni le lendemain mhm. añ bi assuré wul ndekki bi assuré wul bi assuré mm, mm, merci Birahim beneen situation boo xam ne dinañ ci wax Lamine Senghor maa ngi koy wax sànq ak ak euh, Birahim ci ci pàcc bu njëkk bi ñu ci bari euh, jamono ji caab mi ngi leen féetee ginnaaw parce que li leen jàppee euh, bokk na ci yee fitna téeméer boo jël juróom fukk yi mën nañu wax loolu mais ju gis ne à chaque fois Ousmane Sonko bu ñu ko woowee gis nañ ñuy def këram takk der yi tere ko mu génn këram moom ak njabootam est-ce que loolu également du indi yee fitna parce que ne ñoo moom certainement dañuy dem ci kër yaram pour soutenir ko. non mais c'est tout à fait normal la meilleure façon de se défendre c'est mm-hmm. loolu la ñu gis à Ziguinchor euh, maanaam ils ne se sont pas mm-hmm. euh, tàmbale woon na euh, fii nag ci Dakar. Mm-hmm. cité Kër Góor gi waaye comme ni ko comme ni ñu koy waxee rek xam nga. ki jóg naan la li nga bëgg a def duñ ko fi nangu. te fi nga jëm ñun xam nañ ko. Mm-hmm. li muy def mooy tere la nga yegg fi nga jëm. Mm-hmm. loolu mooy loolu mooy yoon. Mm-hmm. te les gens qui de de PASTEF ils sont tellement motivés. Euh, que ñoom nee nañu. puisque le projet du gouvernement puisque le projet de cette justice. Euh, puisque le projet euh, de de de de de l'État mooy. ñoom ñu daal di faagaagal seen i adversaires seen seen i leader politique duñ ko nangu donc c'est tout à fait normal. ñu daal di ñëw pour barricader pour en tout cas faire un bloc derrière cette personne là derrière ce leader moral là bi nga xamante ne ah, moom moom moom la ñu yaakaar ne ëllëg moom mooy doon njiitu réew Sénégal pour pouvoir en tout cas indi fii li nga xam ne moom la ñu gis euh, ci réew mi bu ngir mu mën a avancer ngir mu mën a avancer maintenant mm-hmm. est-ce que euh, maanaam tey taxawaay bi loolu la war a doon parce que boo ko mm-hmm. seetloo ko ni ma ko waxee léegi ñoom mm-hmm. à chaque instant que ñu def ce genre de blocus là par exemple ñu jël le cas de Cité Keur Gorgui mais cité kër góor gi bu ñu ko jëlee ñoom bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu procès amee gars yi bu ñu ñëwee euh, maanaam fourgonnette yi ñëw yeneen yeneen ñëw euh, gisoon nañu la procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang mais cité kër góor gi yëpp la ñu tëj léegi est-ce que yemati nañ ci sëñ Ousmane Sonko kese non. Mm-hmm. maintenant riverains yi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ak Ousmane Sonko moom la ñu. boo boolewaale ci mbir mi donc loolu euh, li nga xamante moom mooy bon je dirais pas trouble mais mm-hmm. maanaam wàññi. tënk nit ki euh, maanaam ci li nga xam moom mooy liberté maanaam ak yële parce que la mm. liberté de circulation la liberté euh, en tout cas des circulations des personnes et des biens loolu droit la boo xamante ne mm. maanaam dañ ko war a euh, yor aakimoo ko ci li nga xam moom mooy démocratie léegi bu ñu demee ba procès Ousmane Sonko war a mën a tax mhm. euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk cité Keur Gorgui dootuñu mën a def seen activité mhm. donc là c'est un problème maintenant est-ce que c'est pour devancer li nga xamante moom moo xewoon atum 2021 parce que boo ko fàttalee ko bi mu xewee ba pare qu'est-ce que le président a dit mhm. man li xew 2021 dootuñu nangu mu xewaat en ci biir réewu Sénégal est-ce que pour devancer loolu moom moo tax maanaam parce que dafa euh, euh, loolu dafay am Euh, laata ñuy xaar nit ñi génn pour mhm. euh, attaquer des institutions wala nit ñi di génn pour manifester ak yi ñoom seen est-ce que war ñu def un bloc euh, défendre li nga xam moom mooy loolu maanaam def un bloc prévenir loolu donc est-ce que loolu moo tax nit ñi di génn ci li nga xamante moom mooy maanaam sécurité bi bi bi toll noonu di génn donc là aussi c'est un point d'inter a l'obligation je mhm. salue le ministre Farba Senghor mhm. qui qui nous suit depuis ce matin qui envoie des textos di di di di wax également xalaatam di apprécier ce qu'on fait mm-hmm. euh, et d'autres le ministre Abdoulaye Seydou Sow et d'autres citoyens sénégalais yoo xam ne qui sont même de l'opposition mm-hmm. ou qui sont même des pro Sonko qui apprécient pour dire que il faut dire la vérité telle mm-hmm. qu'elle est l'État a l'obligation d'assurer ta sécurité la mienne celle de Alamine celle de Cheikh Sonko celle des habitants de Cité Keur Gorgui d'assurer la sécurité de ceux qui habitent Ziguinchor mhm. mais d'assurer la sécurité face à qui à mhm. celui qui veut semer la pagaille mhm. ou excuse le terme ki bëgg créer le bordel xam nga ku bëgg créer le bordel ki génn ne ni tey moom coolee bari waaye dinaa naa yàq naa faat bakken naa def nangam mais xam nga kan mooy à l'origine de tout ceci celui qui appelle à casser à à brûler mais am na loo xame ni mais c'est même criminel nga woo ndaw ne ko xol demal nga taal buñ ma jegee na réew mi tàkk mm-hmm. néew ma Ousmane Sonko ko wax de mais am na ñu jàpp ne moom la muy wax appel à l'insurrection lañ koy woowee ci ñenn. Mm-hmm. gis na ci yeneen réew Ousmane Sonko bu toll woon fii mu toll nii ci ay nit ñu nekk ci ginnaawam am na kàddu yoo xam ne bu ko yëkkatee. procureur moo koy woo bu ñëwul ñu jëli ko. Mhm. je rappelle fan yee passé nee nañu force de défense et de sécurité on tenté. Mhm. tentative d' assassinat par les forces de défence et de sécurité bu ko Birahim Touré waxoon fii balaa muy pare ci plateau bi police ñëw jël si ma. Mhm. ne ma yow yaa accusé force de défense et de sécurité. donne-nous les preuves. mais c' parce que c' est un homme politique. il joue sur la communication également c' est de c' est de bonne guerre. il joue sur la communication. Mm-hmm. mais am na foo xamee ni je le dis je le maintiens et je le répète l'État est responsable de toute cette situation l'État central. Mm-hmm. et je m'explique l'État ma ne l'État central est responsable de toute cette situation. Mm-hmm. au début mënoon nañoo teel a baral mbir mi. ñu dem ci procès bu ñu waree dem ci procès ñu déglu ñu war a déglu ko ñëw ne ni dañ la yow dañ la tuumaal par force nga ñëw wuy dès le début. bon du ñu agsi ci deux mille vingt et un ay nit ñu faatu ak yeneen ak yeneen. Mhm. mais l' état central la mu def mooy non damay bañ coow am damay bañu taal fii damay bañu nangam ak nangam un état fort reste un état fort xam nga c' est quoi la force de l' état c' pas de brimer de de de lancer des grenades lacrymogènes ou de tirer sur des gens non l' état fort mooy qu'on respecte ses institutions mooy lan. Mhm. magistrature euh, justice dañ la woo. ala kulliyaal bu ñu waree activer ñu war a dem pour lijjanti pour justice bi la woo nga wuy ko pour mën a sauvegarder justice mais les magistrats je le disais tout à l'heure mais magistrats yi est-ce que tey mën nañu am na magi magistrat bi yore dossier bi bu tëddee këram ay sécurité ñoo koy garder. Hmm. parce que même sa sa vie et en danger. ndax lan benn procès ñu ne diw moo tuumaal diw na ñëw weddi tuuma wala ñu ñëw ñu wax ni mu leer ni tuuma yi peut-être du dëgg wala tuuma yi dëgg la ñu passé à autre chose les magistrats ñaata nit la ñuy jugé ci par at bu ñu ubbee li nga xam ne moom mooy année judiciaire mm-hmm. ñaata nit la ñuy jugé ci chambre criminelle am na ñoo xamee ni ñu ngi leen di jugé Mbour am na ñuy jugé yeneen i euh, diwaan yeneen euh, dëkk ci biir Sénégal ñu ngi leen di jugé au quotidien mais magistrat bu yore wala procureur bu dugg ci dossier wu Ousmane Sonko ñu ne la tey faw ñu ànd ak waa GIGN ñoo lay surveiller wala waa brigade d'intervention de la police mm-hmm. doo génn sa buntu kër sa njaboot du ñu génn seen buntu kër te duñu ànd ak ay garde parce que mm-hmm. ñu ngi naan sa kër sax boo moytuwul da ngay toxu mën ngaa dëkk fii ci Sicap Rue 10 wala Grand Dakar ca lëmpal ba ñu koy waxee mm-hmm. am fa ñoo xam ne fa ngeen màggandoo yarandoo fa lépp mm-hmm. mais mënatoo fa dëkk tout simplement parce que procès nangam la diw mooy dem procès te yow xàmmee nañ la dañ naan boo moytul mën nañoo taal sa kër wala mën nañoo def nangam mën nañoo def ndàngam qu'est-ce qui est à l'origine de tout ceci Abdoulaye Wade moo leen gënoon tàng téeméer yoon mm-hmm. moo leen gënoon doon opposant gën leen a tàng téeméer yoon am na foo xam ne àgguñu fa avant lui y avait d'autres personnes am na foo xam ne àgguñu fa lan moo changé nag parce que li ñuy changé am ñoo xam ne nag beneen mentalité la indi. Mhm. c' est pour l' opposition. Mhm. et c' est pour le pouvoir. Euh, loolu moo nekkoon li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëy ñu doon waxtaanee li nga xam ne moom moo ci gën a fas muy euh, procès bi wutale euh, Adji ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko du ñàkk ni ci kanam tuuti nañu dem ci ca tribunal fekk fa suñu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo ñu fa teewal.